Mark saar benn. ginnaaw loolu yeesu ak taalibe ya jege nañu yerusalem ba ak agsi dëkki betfase ak betani ci wetu tund oliw ya noonu yeesu yebal ñaar ci taalibeem ne leen demleen ci dëkk bi ci kanam bu ngeen fa duggee dingeen fa gis ci cumbur gu kenn musula war yibi leen ko indi bu leen kenn nee lu ngeen di def tontu leen ko borom bi da ko soxla te léegi mu delloosi ko taalibe ya dem nag ñu gis cumbur ga ci mbedd mi mu yeewe ci buntu kër bi ñu ko yiwi nag am na ca ña fa taxaw ñu ne leen lu ngeen nar ba yiwi cumbur gi taalibe yi tontu leen ni leen yéesu digale woon kon nit ñi bàyyi leen ñu dem ñu indi ci mbur gi yéesu nag lal ci seeni yére mu toog ci ñu bari lal seeni yére ci yoon wi ñenn ñi dagg ay cari garab ci tool yi lal leen nit ci yoon wi ñiy jiitu ak ñiy topp ci yéesu ñépp di wax ci kaw naan hosaana yow mi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga nguuru sunu maam daawuda gi ñëw dina barkeel ci barab yu gën a kawe nañu ne osaana noonu yéesu dugg yerusalem dem kër yàlla ga xool lépp ba noppi génn dem dëkku betani moom ak fukki taalibe ya ak ñaar ndaxte dafa guddi bët set ñu génn betani fekk yeesu xiif noonu mu seen fu sore garabu figg gu sëq mu dem seeti ndax am na ay doom waaye bi mu fa àggee gisul lu dul ay xob ndaxte jamono figg duggagul ci kaw loolu mu ne garab gi dootuloo meññ mukk taalibe yi dégg loolu mu wax bi ñu àggee yerusalem yeesu dugg ci kër yàlla gi daldi dàq ñi fay jaay ak ñi fay jënd mu daaneel taabali weccikatu xaalis yi ak tooguy jaaykati pitax yi te mayul kenn mu yóbbu am njaay ci kër yàlla gi mu di leen jàngal ne leen ndax waxuñu ci mbind mi des na wooye sama kër këru ñaan ci yàlla ngir xeet yépp waaye yéen def ngeen ko këru sàcc bi ko saraxalekat yu mag yi ak xutbakat ya déggee nag ñu ragal ko ndaxte mbooloo mépp dañoo waaru ci njàngaleem noonu ñu seet pexem reylu ko bi timis jotee yeesu ak taalibe yi génn dëkk bi ci suba si bi ñuy dem ñu gis ne garabu figg gi dee na ba wow koŋ noonu piyeer fàttaliku li xewoon ne yéesu kilifa gi xoolal figg gi nga rëbb dee na ba wow yeesu tontu ne gëm leen yàlla ci dëgg maa ngi leen koy wax ku ne tund wële jógal tàbbi ca géej ga te nga gëm ni loolu dina am bañ cee boole xel ñaar kon sa ñaan nangu moo tax maa ngi leen koy wax bu ngeen di ñaan yàlla lépp lu ngeen ko mën a laaj gëmleen leen ni jot ngeen ko te dingeen ko am te it bu ngeen di ñaan fekk ngeen jàppal kenn dara leen ko ngir seen baay bi ci kaw baal leen seeni tooñ yéen itam ginnaaw loolu ñu duggaat yerusalem te yeesu doon doxantu ca ëttu kër yàlla ga noonu saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ak njiit ya dab ko ne ko yëf yi ngay def ci ban sañsañ nga koy defee te ku la may sañ-sañu def ko yeesu leen man itam dinaa leen laaj lenn bu ngeen ma ci tontoo kon dinaa leen wax ci bañ sañ-sañ laay defe yëf yi la Yaxya daan def di sóob nit ñi ci ndox fu mu ko jële ci yàlla walla ci nit ñi bi ñu ko déggee ñuy werante ci seen biir naan bu nu nee ci yàlla kon dinañu laaj lu tax gëmu leen ko kon waaye bu nu nee ci nit ñi kon mbooloo mi dal ci suñu kaw ndaxte ñépp teg nañu yaxi ab yonent ñu tontu yéesu nag ne loolu de xamuñu ko noonu yéesu ne leen kon man itam duma leen wax ci ban sañsañ lay laay defee yëf yii